ñu ngi leen di nuyu nuyu lislaam jàmm xeewal sutura barke yàlla na ko yàlla wàccee ci yéen wàccee ko ci ñun wàccee ci àdduna bi ak jullit yëpp macha allah santaat yàlla bu baax ci may gi ñu may ñu fekke weeru màgg wi di weeru koor ah niñ ci duggee ci bismillahi rahmaani rahim yàlla nañ ci génnee noonu ak alhamdulillahi rabbil alamin ah muy dem yóbbaale suñuy bàkkaar bàyyil ñu fi ay ngëneel fees dell ak ay yiw macha allah ci barke weeru koor gi ah ñu ngi fii ak yéen ci télé bi di al muxtasimin macha allah ci suñu jotaayu waxtaan bi di al ci ah, waxtaanu weeru koor yi ñu jagleel ko nag alquran ak màggaayam ak baax-baax yi nga xam ne moo ci aju ndax dañoo nekk ci weeram macha allah ñu war ci góorgóorlu ah suñu jataay bi paase ñu ngi woon ci way jur yi nga xam ne yàlla daf leen décorer ëllëg yoom xiyaam ci yóbbu gi ñu yóbbu seen doom ñu dem jàngi alquran nga xam ne ngëneel gënu ko rëy waaw ndax ni ma ko waxee woon rek ah njiit goo fonk fii ci àdduna rek su la ne woon ñool ma décorer rek dafay rëy ci yow loo am di ko am di nga ko ko yëgal wala sëb sëriñ wala nangam nangam nga dem ba yowmal xiyaam yàlla décorer la ah solo la mbubb mu rafet solo na baxana mu rafet macha allah nga ni waa xéewal gii fu ma ko jëlee ñu ne la ah xanaa sa doom ja nga jëloon yóbbu ko ca daara ja mu jàngi alxuraan de moo waral lu rëy lii kon mbokk yi ñu profité yóbbu suñuy doom dem ca daaray alxuraan ya jàngi waaye rawatina ñun ñu nekk ci Europe ñu profité ci barab yi nga xam ne ci la ñuy jàngalee njaboot gi suñu jotaay bi passé waxtaanoon nañ ci ba ci zawiye bi nga xam ne Ah, ñu ngi koy waajal fii ci macha allah ñu joxe woon iban bi ne ku ci bëgg jàpp rek nga dugal ci sa loxo ko defee ñun tamit ñu am foo xam ne fa la ñuy yaree suñu njaboot ndax ah ku ko deful yaa ci ak sàggante gu rëy nag te loolu yàlla nañ ci yàlla musal tey nag ñuy ñëw ci kër gi nga xam ne fa la ñuy jàngee alxuraan maanaam kër gu ñuy jàngee alxuraan la fay wàcc ci ay xéewal ak ay ngëneel macha allah kon ñuy jàng ci biir kër yi alxuraan rawatina ci weeru koor gi jar na sax ñu organiser wu waaw kër gi bu fekkee ay nit a ngi fi yoo xam ne mën nañu dara ci alxuraan a ah, ku ne ñu jox la la nga mën nga profitoo ko ci weeru koor ñu fexe ba wàccee kaamil gën gaa gàtt gën gaa gàtt kër gu nekk fexe ba wàccee kaamil ci koor gi xanaa ñàkkul kër gi ku mën a jàng alxuraan ci biir kër gi ngeen organiser wu ku mën a jàng saa yu kawe nga jër saa ya nga mën nga jàng ko koo xam ya. ne li nga mokkal bayiwul nga fexe ba jàng saar yooyu bu ko defee ñu dajale lépp fexe ba balaa koor gee jeex gën gaa gàtt laa wax suñu kër ñu wàccee kaamil boobu muy góor muy jigéen ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na kër gu ñuy jàngee alxuraan même dul koor nga xëy rek farataal ci sa bopp ne ah war na maa jàng tey nangami aaya alxuraan keneen def ko borom kër bi def ko soxna si def ko njaboot gi def ko nee na kër googu ah yiwam day bëri de yiw bëri mooy am ci kër googu kër gi ñuy jàngee xëy di fa jàng alxuraan nga xam ne nee na luñ ko bés bu nekk am nañ dara luñ war a jàng ci alxuraan ñu ne kër googa xéewal bari moo fay wàcc yàq suru xayruhu ah njaboot ga ak yaatal da ciy am maanaam xol yi day ubbeeku dañuy bëggante dañuy nekk benn wërsëg wa day bëri ci kër googa kër gi ñuy jàngee alxuraan ay malaaka dañ fay teew malaaka nag buñ ko waxee mooy malaaka yërmande yi malaaka yi nga xam ne ñoom la yàlla di yónni ñuy wàccee ay yërmande dañuy teew ci kër goog nga xam ne dañ fay jàng alxuraan seytaan daf koy gàddaay kër gu ñuy jàngee alxuraan seytaan daf koy gàddaay yonent waxaat na ci beneen hadis mu ne da leen ci seen kër yi suratul baqara suratul baqara nga koy jàng ci sa kër day dàq seytaane même su fekkee yow mënoo koo jàng man nga jël sa téléphone bi xool suratul baqara nga bàyyi muy daw jàngal la ci kër gi suratul baqara ba mu jeex ndax mu dàqal la seytaane foofu ak la ca ne ci ay yiw ayatul kursi yi ma ngi ci suratul baqara te ayatul kursi ñun ñëpp xam nañ lu ci ne amana rasul mi ngi ci suratul baqara te xam nañ baax baax yi ci nekk mi ngi noonu macha allah kon ñuy jàng ci kër yi alquran ndax yiw bu bari bi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wax ni kër gu ñuy jàngee alxuraan am na loolu yiw wa day bëri njaboot ga dañuy yaatu malaaka yéen ma dañ fay wàcc seytaan da koy gàddaay seytaane gàddaay gi muy gàddaay sa kër rek jar na jàng alxuraan ndax féewale gi muy féewale xol yi ak yu bon yi muy def ci xol yi nga jàng ko rek seytaane daw la loolu jar na lu jar na lu ne waxuma laa yeneen yi nga xam moo ci aju léegi nag contraire bi day am kër guñ dul jàngee alxuraan ah xol yi dañuy xat bilim mbàcc ñu mer ña fa dëkk bilim mbàcc ñu jàppante xuloo ba day bari ndax lan seytaane fay toog ca biir kër ga di feewale rek yiw wa dafay néew barke du fa wàcc kër goo xam ne kenn dafa ubbi kaamil kenn du fa jàng alxuraan dañuy xëy suba ba ngoon benn araf alxuraan du fa jib xanaa julli te lool mënta ñàkk julli xanaa mais bu dul loolu moom jël rek téere bi ubbi ah loolu mbokk jullit yi musiba la de musiba la de nañuy fexe ba suñu kër yi bu ñu xëyee wala boog bu fekkee amuñu jot journée bi yëpp bala ngaa tëdd nga jàng tuuti ci alxuraan fexeel ba bana neenal jour bi rek yow sa kër jàng fa alxuraan muy léemaay di musulaay nga dàqe ko seytaane waaye xëy rek dem doxi yitte yi doo ubbi benn yoon téere yàlla bi jàng alxuraan loolu garaaw na de ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax fexé ba suñu kër yi ñu bañ ko def ay bammel am na bo boo xam bi sallallahu alayhi Wasallam loolu la wax bammel moy ñu def ko tëddukaay rek waye nañuy fexé ba euh, di difa jang alquran ndax yu wi nga xam mom la am macha allah kon yalla defal ñu dégg ak top yalla xit ñu ci ñuy bayyi xel téré yalla bi diko bayyi lo xel suñu allah